ñu war a wàccaayee magal ci safar allah wax nañ bu jubóo ci ne nañ ko am doxal te buñ dara mboolam commission bi nga xam ne seen lañ lañ ko am teg ci teg mboolam li nga xam laaj adde bi nekk muy sasi nga def dajal ko wax ko lu man man lu man ko waxee ne waxuñu lu ko ne jëm suuf lu ci mën a ah, baax na lu baax na mooy lu man ndax nañ ne ñi fi na ay kenn ci góorgóorlu daal suñu borom la ko ci yéen sa suñu yéen wax yàlla yomb la suñu borom ñu bokk na ñu bëgg nag suñu euh, mbokk yi daal bi yi nga xam ñoo ñoo nekk ci daayira ñoo bokkal nekkal ko suñu wàcc ñëpp ñu taxaw ci góorgóorlu bu baax a baax euh, xam naa ne euh, daa ngay taaral gën a taaral commission bi am ñun ci gën a waxtaanal dañ ko am taxaw waaye ñu ko yoroon ba tey ci seen loxo lay tege moom du am benn soppi malgré bu fekkee ne rek nekkuñu fi sax waaye am na joo xam ne nekkuñu fi sax waaye am ñu fi nekk waxtaan fas nañ yéen rek incha allah dibéer bi tey jii bu dee euh, ci lañu war a commission bi nga xam ne ñooy saytu bi magal ci lañ war a jóg tàmbale laaj adee magal waaw bu ko leeral mbooloo bi ñu ko waxee fii ci euh, réunion bi wax leen ne maanaam dajaloon nañ euh, ngir wàccaayu bis bi jubóo nañ ci sachet nan def ñeenti julli dara yóbbu man baax na ko man lu ko ëppit baax na waaw bi nga xam ne ñoo ko yoraan yor naka jekk tamit seen xol lañ koy bàyyi ñoo koy saytu ñoo koy toppatoo ba laaj at yi ba mu dajal ñu jébal ma ko nanu eh, lii moo fi at yu daje bu ko defee daañu xool li nga xam ci lañu war a ak ci lañu ci sin sin tuba wax nañ ko waxal gis nañ ci eh, imam def nañ waxtaan bàyyi ci def nañ waxtaan bàyyi sa kat ñoom kenn ku ne jox sa xalaat ñëpp di woon nañ jébal daal waaleykum salaam wa rahmatullah kon nañ ko bokk waaye ñëpp di ñaan suñu borom yàggal fi sëñ Mbodou sëñ Muntaxa bi nga xalifa ko nga bari na xeexoo yoo xam ne nii ci àdduna si eh, mbasum jamono ji soppi na ko waaye moom moo wax di yàlla ba mu fi toogee ba léegi lépp loo xam ne mas nañu ci mbas ak ay xeexoo àdduna yi benn programme boo xam ne na ko boo xam ne mën na cee soppi dara musta am xanaa yokk kari ñax waaye mu waaye musta su ci wàññi benn tarafatal ay nii du ci julli jumaa yi du ci màggal yi du ci leneen te leneen lu nekk bu ñu ci àggee bu ne suñu borom da ko ci defal tawfeex defal ci xéwal ñoo ngi ñaan tam fa xew a jëm nag suñu borom wàcc ko ci mboolem euh, yëpp yëpp yëpp rawatina nag mënu bi sëñ Tuubaa tali bi sëñ Tuubaa ngi ziare ñëpp di baax di baax waaleykum salaam wa